asalaamaaleykum sunu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen jaare di leen bëgg bu baax di leen baalu àq ca di leen baal àq di ñaan sunu boroom boole ñu jéggal defal ñu jàmm xéewal ak tawfeex yéen ñi xam ni yéen ñu topp sunu site bi di Wade TV Pire ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di am mbégte nag lool si yéen di yeesal sunu kóllëre sunu diggante ak yéen di ñaan ñi xamante ni gisaguñu site bi ñu leen di ñaan ñi xam ni abonné ñu abonné di partager vidéo yi ca dikk eme ay ñaan ñu am njariñ lañ leen di indil muy xam-xam bu wóor boo xam ni gëstu nañu ko ba mu leer ñu soog ko indi ñu leen di wax nag ni tey de biñ leen di indil bokk na ci luy dox ci noob ndax li tax ñuy indi noob indiwuñu ko ngir di indi loo xam ne nit ñi dañu koy fawee waaye dañuy indi loo xamante ni dafa bari lu muy indil ay jafe-jafe yoo xam ni si ay diggante si sëy dafa bari lool loolu moo tax ñuy indi vidéo yi di leen ko présente di leen si defal ay gëstu nag yu yaatu ndax bari na ñoo xam ni dañuy nekk si biir sëy dem ba si biir coow li bari lool bu boobaa da ngay jëfandikoo ñaan yi xam ni moom lañ si dugal su fekkee dafa am koy bëgganteel ngeen di dem ba si biir seen diggante bari coow man ngay jëfandikoo ñaan yi su fekkee ni dafa am koy bëgg yaa xam góor nga walla ngay jigéen nu nga jox bopp incha allahu boo ko defee nii ñu la ko waxee incha allahu dina la jox bopp seen diggante dina neex worante du si am kon bàyyi leen xel ngeen gaaw ñaan lu si diggante yi balaa diggante yee yëngutu ndax moo gën nga bàyyi ba diggante bi yëngutu ngay soog a wut lu ko dalal ñu leen di wax nag ak bépp ñaan boo xamante ni doomu aadama soxla na ko si ak dundam boo ñu woowee incha allahu dañ koy àndandoo ak yow taxaw si bu baax ba loolee ngay sàkku sunu borom defal la ko su fekkee dangaa bëgg listixaarlu mën nga noowoo wala nga bëgg bayre jigéen wala nga bëgg bayram njaay wala ngay am place yoo xamante nii da nga fay xëcc bëgg faa dem wala nga koy xëccoo ki mbooloo incha allahu boo ñu woowee ñu taxaw la si wala ngay bañ kenn ku la yàqal wala nga am kër di bañ saay-saay doxale ginnaaw bu boobaa mën nga noo bu fekkee da ngaa yor kër tamit bëgg kër ga yaatu am naataange yokkute si njaboot ak ay xéewal si wërsëg man nga ni woo incha allahu ñu taxawula la si bu baax mbokk yi secret bi xam ni moom leen di indil tey muy ñaan gi xam ni mooy affiché ci écran bi moom la ñuy tuddee nopp ana nan lañu koy defee moom mooy photo bii xam ni moom lañ def laaya ji xam ni dangay def bismillahi rahmaani rahim ubbi miim yépp yi ci nekk ba mu jeex nga sol ci tur yi boo paree nga def mudduha motaani nga ubbi ko def ci seeni tur tur ki xamante ni moo bëgg mooy féete kaw turu ki moom nga bëgg mu nangul la mu féete suuf boo paree nga wut aw jën jënu yaboy nga ubbi gémmañ nga saxal ko jën wa soo paree nga gas pax mu xoot nga suul ci jën wa waaye sooy suul jën wi dangay juutal jën wi bopp ba jiitu bopp ba féete suuf geenu jën bi féete kaw incha allahu soo ko defee seen diggante dina neex bu dee ku la nungulul dina la nungul bu dee koo xam ne da ngeen du sëy coow la bari coow la incha allahu seen diggante dina kolewu incha allahu kenn du si man dara incha allahu ñuy ñaan sunu borom mi xam ne moom mooy nungu ñaan yàlla na sunu borom nungul ñu ñaan yi képp koo xam ne gis nga secret yi nga jëfandikoo ko ca sëy rek tax yàlla na suñu borom nu ko waaye képp koo xam ni yaa ngi koy jëfandikoo ngir foo ñoo ngi ñaan suñu borom mi xamante ni moom mooy nungu ñaan di gàntu ñaan waaye bu boobaa yàlla na suñu borom gàntul ki xamante ni dafa jóg rek ngir fosi ngir yàq kon mbokk yi ñu leen di jëfal bu baax di leen ñaan yéen ñi aboné nag ngeen aboné di partager vidéo yi jërë ngeen jëf si yeneen. vidéo yi xam ni mi ngi ñëw incha allah